ami internet bu Actubuzz salaam di jàmm waaleykum jëm ci képp koo xam yaa mooy euh, à la découverte nag saa su nekk ki lañ koy àndal ko mooy euh, Pape Faye Prési saa su nekk nag euh, bu ngeen gisee da xam ne nag dañuy dem ci lu bëree bëri dox ci lu bëree bëri te nag dañ leen benn émission boo xam ne émission boo xam ne defe toog sa kër bëggoon a tukki wala bëggoon lu bëree bëri xam nga ci wàllum kayit tey je pense que ne dinañ leen may plaisir bi donc dinañ ñu ko xam ci Akon euh, Thiam taalibe Serigne Saliou bi nga xam ne nag xale bu baax lool ku mën li muy def gëm lool li muy def di jàppale jeunes yi di jàppale képp koo xam ni da ngay sénégalais wala ngay sénégalaise rek euh, bëgg tukki moo xam sax nga nekk foog nga xam ne mooy ca Espagne euh, bëgg ay kayit ak yu ni mel moom dana ci jàppale ci lu bëree bëri kooku defe naa nag kooku ki nga xam ne mooy Macky Sall war na ko war na ko recevoir ndax koo xam ni naa la dafa bàyyi ay yitteem lépp rek pour yittee jaam yi loolu je pense que ni lu am am solo la donc bala ñu dugg moom ci waxtaan bi ci lu bëree bëri tey di ngeen découvrir lu bëree bëree bëri ci Akon ataa loolu ñu bàyyi ko mu nuyoog internet Bakty Buzz siyaar frère. waaw ñu lay delloo siyaaru wér euh, Pape Faye mhm. di am mbégte tey taw yéen fii nga xamante mooy Saly mhm. ngeen ñëw rek euh, ak seen yitte mhm. ak li nga xamante ni mooy seen xel mu sell xel mu rafet waaye nag balaa ñuy xuus damay wax euh, auzu billah ina waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullah mhm. àdduna wër ngeen këpp ñiy seetaan mhm. di wax rek euh, jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfe saaliw mhm. yàlla jàmm sax Sénégal waxuma Sénégal sax ci àdduna ndaxte bu jàmm saxee rek yaakaar naa ni ah, lépp day naat saawan baawan waaw di ñëw sa question bi nga ma laaj noonu di nga xam mooy bi nga xamante ni mooy comme na laa la ko mën a waxee sax comme li nga wax ci jeune bi nga xam ne moo nekk fële ci Espagne waaw man nag euh, maa ngi tudd ay Thiam ñu gën ma xam ci Modou Thiam. Uh-huh. waaye nag Akon bi dafa siiw depuis 2004. waaw waaw depuis 2004 ba tey ñuy wax euh, Akon Thiam. macha allah waaw bi ñu demee nag ba nga xamante ni mbir mi xuus na xuusaat ñu ñuy gis ci leneen loo xamante ni ci wàllu religion lay doon ñu ne ma nag da changer tur leen déedéet. bàyyi la noonu Akon Thiam bi rek. Uh-huh. léegi nag Espagne ñu ngi fa dem 2006. macha allah waaw 2006 lañ fa dem. Uh-huh. bi ñu fa demee nag. Euh, premier mois yi nga xamante ni moom laa fa nekk muy le 16. Uh-huh. mai 2006. Uh-huh. novembre boobu dama doon ñibbisiwaat. ok waaw di wax rek. Euh, loolu rek ñibbisi bi daa metti woon wala. <laughs> maanaam metti metti woon sax mais uh-huh. comme maanaam tey nga am sa benn projet bu mag boo xam ne nga ko bàyyi fii sa at atelier sa budget bu mag. waaw nga jóge fii dem dem foofu. waaw euh, première weer yi. mel ni loo xam ne ngay galère. galère bu metti boo xamante ni. foogoo ko woon. foogoo ko woon. kon nag boo gisee image yoo xam ne ñu la koy won ci télé bi wala affaire yooyu mhm. fa leneen yaakaar naa ni su boobaa sa xel lay tourné waat lu delluwaat sa sa dëkk bi nga jógoon parce que bàyyi nga fa teraanga am nga fa teraanga quoi. surtout sax ci li nekk. Mhm. moo tax toujours may wax naan euh, jeunes yi nga xamante ñoo nekk fii nii Sénégal. Mhm. yaakaar naa ni bu fekkee am nañ ci lu ñu jàpp. wax bi nag du neex. parce que it des fois dañ naan nit ki bu nee fee neexul la moo tax ñibbisiwul toog ci këram. dëgg la toog ci dëkkam. dëgg la waaye dund yi ñoo bokkul nag. dund yi bokk ñëw ah. lu tax dund yi bokk ñëw fi nga màggee yaroo fa ah. war ko bàyyi dem feneen wala commencé waat dund bu bees ah. yaakaar naa ni tamit loolu bu fekkee am nga position bu baax fi nga nekk yaakaar naa ne war nga fa mën a taxawal lu lu am solo tout à fait waaw kon nag euh, ci première partie bi ñëw ci loolu quoi. alors euh, ba tax na moom li ma ko bëggoon laaj sax je pense que moom résumé na ma ko tuuti la ma waraloon dem bi xam jot nañu expliqué lu waraloon dem bi ak foofu noonu ci wàllum alors ñu gis benn kon mu nekk benn jeune boo xamante ni dafa ambitieux. maanaam euh, bu ñu gisee benn jeune boo xam te ni dafa nekk réewam dem beneen beneen réew am ay projet yoo xam nii def def def na ko alors fu ma njëkkee yow mooy Akon mu benn benn logo boo xam ne da nga ko def benn marque boo xam te ni sa marque bopp la muy euh, tukki. Hmm? tukki yére muy tukki yére mu nekk benn marque boo xam te ni man bi ma ko déggee dama ne attends lan moo war a tukki yére yére yére bi ma ne attends Akon sama tool yi ma xamul xamul Akon lan moo war a tukki yére bi lan moo waral nga créé tukki yére. waaw loolu lañ ci sawar a tontu. Uh-huh. ndaxte bu fekkente ne dañ ne nit ki da fekk yëfu jàmbur. Uh-huh. jël ko. Uh-huh. su boobaa lépp loo ci mën a am lu nekk rek euh, yaakaar naa ni ci kam ko jëlee. dëgg la nga ko amee ko dëgg la waaye boo ñëwee am say création yu bees. kon loofu lépp lépp la fu mën a am rek. day nekk sa yëfu bopp. dëgg la tukki yére bi fu mu jógee comme nit ki dama bëggoon ay affaire de art. yére yoo xamante ne dañ koy modifier. des ma dugg Zara wala Pull&Bear wala Bershka dugg mm-hmm. foofu. Mm-hmm. jënd benn t-shirt. Mm-hmm. wala ma jënd benn jacket wala ma jënd benn pull boo xamante ni dama koy teg xool benn tissu vax wala Zara chemise noonu ma dagg ko. benn dagg bu xaw a kii rek teg ko ci kaw ñaw ko ak pousse loxo quoi. léegi su ma ko ñawee ak pousse loxo. dugguma la dugguma la foofu parce que dama am loo xam ma xaw a jaaxal ay kon nekk nekkul woon déedéet ay comme ñu ngi def ay waa ay ay chaîne ak ay jaaroo yooyu. bis bis yi mais kon lan moo lan moo waral <laughs> ay kon bàyyi loolu <laughs> dem ci wàllum li nga xam ne maanaam wàllum wàllum wàllum tëyër la loolu dafa xaw a garaaw quoi. waaw léegi xam nga la moo waral loolu parce que mooy li ma la wax noonu rek comme dugg ci biti jënd benn tiset. Mm. bu ko modifié. waaw nga dagg ko teg ko ci sol ko. Mm-hmm. nga ànd ak nasaraan yi fii ñu ne la mais li nga sol dafa rafet. Mm-hmm. Ah, nga ne ko maa ko defar ñu ne la pourquoi mënoo ci defar yoo xamante ni da nga koy jaay. Mm-hmm. man leen non man maa ngi sama métier. maa ngi liggéey fii kon soxla ma loo xam ne ma koy defar pour jaay ko dëgg la fur et à mesure may gën di defar di sol di defar di sol des fois sax ma am ñu may àndal defaral leen ñu sol ñoom tamit. Mhm. ñu ne moom yàgg na ma non lii il faut nga créer benn affaire boo xamante ni. Mhm. ci wàllu li leen nekk quoi. mu leen ay ca léegi am na koo xam ne nag moom mi ngi ci coordonnateur bi ana mhm. sans la tudd. bi ñu toogee waxtaan mu ne ma noo lañ jéem a defar benn logo boo xamante la nga xalaat. ma ne ko léegi li ma xalaat lenn la mooy tukki. yére. la ma waral tukki bi mu ne ma kon. tukki ma ne ko si ma ne ko tukki signifie que viaje mooy ci espagnol quoi léegi comme yére bi dafa tukki mooy tisi bi dafa ah. tukki ah, ñu jël ko dañ ko jëlee fii yóbbu ko fale voilà tukki yére kon ah. yére bi tukki na waaw bi mu tukkee ñu jël ko boole ko jaxase ko ak yére européen mu nekk vax ak t-shirt boo xam ni européens yi ñoo ko defar xam nga t-shirt yi sénégal yi defaruñ ko européens ñoo ko defar ñu defar ay batik bi nga sol nii sénégal ko defar bii ma sol nii waaw sénégal yi ñoo ko defar dama romb ci biti rek gis tisi bi neex ma ma dem ci sama benn xarit boo xam ne mi ngi fi marché sali hmm. daam di ko nuyu bu baax macha allah ne ko tisi laa gis lan nga ci xalaat hmm. mu ne ma ah tisi bi ma ne ko waaw ma ne ko bëgg nga daggal ma ko lii ak lii hmm. mu dagg ko mën ko léegi ci dënn bi def si nangam ak nangam. Hmm. xam nga créé sama modèle quoi mën ko defaral ma mu defaral ma ko tey mi ngi nii. macha pare duggaat ci tukki yére. loolu la parce que tamit des fois ngay hmm. comme li nga laaj sànq maanaam la moo tax Akon nekkoon bijoutier tey mu hmm. ñëw nekk tailleur. lu garaaw du ma tailleur damay créé damay créé création bi maanaam da ngay gis benn affaire boo xamante ni nekk na nii yow nga defee ko waaw te lépp lu may créé lu nekk rek bu ñu ci defaree benn bi ñu ko defaraat. si bu ñu jaar rek. Uh-huh. dañ koy bàyyi. Uh-huh. dootuñ ci ñëwaat. Uh-huh. dootuñ ko répété quoi. pièce bu nekk benn lay nekk buñ la jaay yow kese yaa koy sol kenn du solaat. maanaam est-ce que est-ce que yéen tukki yére yi nga xam ne yéen a ngi koy def. Euh, Sénégal yi gis ngeen bo yéen yéen a ngi ko gis seen bopp à travers Sénégal fii ngeen fii ngeen ko defa defaree est-ce que Sénégal ñëpp luñ koy jënd wala wala dëkku national national si. waaw parce que fële ci Espagne foofu la ñuy exposé. mais terewul tamit nekkul ne dañuy exposé di jaay ci mbedd yi wala am nañ boutique boo xam ne dañ koy jaay foofu wala déet non comme bu fekkee fa am festival. Mhm. festival yi la ñuy wane ne jour tel am na festival. Mhm. exposition bi ni lay demee ak nii ak nii. comme genre foire quoi. comme genre foire. ok ñu ñëw exposé. Mhm. noonu la demee comme mairie programme seen programme ne ñu léegi jour am na nangam ak nangam. léegi su ko defee ñu xool yan la ñu war a exposé quoi. comme affaire de art la. ñu xool jour yi ñuy exposé ak jour yoo xam ne yéen ñooy ñëw exposé quoi. alors damay damay damay génn un peu foofu parce que dafa am loo xam ni maa ngi koy wax sànq sama biir wax euh, loolu je pense que moom la ndaw yu bëri bëri di xaar. Mhm. ay kon nga nekk benn ndaw boo xam maa ngi koy wax biir wax nga nekk benn ndaw boo xamante ni eh, bëri na si ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi foofu ca Espagne. Mhm. nga leen jàppale ci wàllum kayit. Euh, association bi ngay bi ngay liggéey liggéeyal naka nga def ba intégré ci association boobu d' abord. waaw loolu parti boobu day nekk parti bu am solo laaj bu am solo. Mhm. lu tax mu am solo maanaam mooy nga génn. doon koo xamante ni mosoo toog baamu école. dégg ma soo toog baamu école mosoo jàng. alors grand na de. te yaakaar naa ne suñu famille man rek maa si jàngul parce que boo xoolee ku ku nekk dégg nga professeur Iba ca Thiam dem si yàlla si yàlla suñu borom xare aljana ko ñaanal suñu borom mu xare ko aljana. allahumma amiin. kon samay yenn rak tey ñu ngi ay directeur Sonatel la ñii ñi ngi def droit ñii ñi ngi nekk ci yenn fonction yoo xam ne fonction yu baax la macha allah. ma nekk jëmm yoo xam ni. jànguma ci nasaraan waaye nag taalibi Serigne Saliou boo xamante nag tokkatu kuréel la waaw waaw léegi nag comme li nga laaj noonu mooy jeunes yi nga xam ne da nekk fa li leen jàppale ci àllu affaire kayit mhm. maanaam intégré la waaw tey nga dem si dëkk maanaam da ngay xool si place yi nga xamante ni mhm. place yi la mën a jëriñ la mhm. jëriñ sa mbokk rawatina ak der bu ñuul nga fexe ba place yooyu nga nekk ci boo ci nekkee nga am accès boo xamante ni képp ku am problème boobu di bu xamul yoon muy jaarale nga xamal ko ban yoon lay jaarale uh-huh. nga koy jaarale quoi parce que tamit bëri na ñoo xam ne ñi ngi foofu uh-huh. am ay jafe-jafe kayit uh-huh. am ay jafe-jafe yoo xamante ni lu dul lu dul la sax ci yeneen côté wàllu avocat wàllu yeneen yoo xamante ni dañ koy am dañ si dañ koy jànkonteel quoi dañu am problème yu ñuy jànkonteel foofu mais su ko defee yow bu boobaa dana mën a jël boo leen ak ay avocat yoo xam ñoo leen lijjanti seen affaire bu fekkee ci côté entreprise yi yow bu fekkee mën nga dem nga réglé ko bu fekkee mënul mënoo ko réglé. Mhm. am nañ benn kii boo xamante ni mi ngi tudd CGT. ok waaw si logo boobu laa nekk muy CGT ñoo xam ni. Mhm. ñoom dañuy contre mhm. dañuy contre koo xamante ni joxoo nit ki àqam ak yelleefam. lépp luy xamante ni amul àq ak yelleef dañ koy dañ koy contre. man man seen biir laa nekk. te mu dëkk affaire boo xamante ni kii bu am doole la. bu fekkee loo xam ne man mënu ma ko lijjanti personnel. foofu laa koy yóbbu. ñoom ñu saafara ko quoi. Mhm. alors bala may ko sax yow ci ci ci ci ci débat bi je pense que ne dañuy dem ba xool benn benn pip après ñu ñëwaat waaye ci pipe bi ngeen xool nag di gis ay affaire a garaaw man pas fi prési maa maa leen ko wax den part ni yéen seen émission bi nga xam ne mooy à la découverte fii ci Actubuzz TV ñu dalal nag suñu frère muy Akon euh, euh, Thiam taalibe Sëñ Saalu bi di dundu foofu nga xam ne mooy sa Espagne alors ñu ñëw na jóge Dakar ñëw fi nga xam ne mooy ci Mbour Saly mu nekk suñu frère bu baax a baax te gis nañ li ñu gàtteeg yëpp yëpp yëpp ñu dem xooli pipe ñëwaat alors ça a été un ne gis nga xam mooy euh, publicité bi nga xam ne je pense ko defal merci beaucoup ci yéen ñi nga xam ne yéen actuellement di ñu bàyyi xel fii ci Actubuzz euh, bi nee na nag saa su nekk ma fàttali leen turam ngi tudd Akon euh, Thiam taalibe Serigne Saliou bi nekk foofu nga xam ne mooy ci Espagne donc merci beaucoup ci pub bi je pense que dina leen jaaxal nag bu ngeen gisaatee yeneen image waaye dinañ ci ci kanam kanam kanam fii muy Mbour Géej lu nekk fi am am na surprise yu bëree baree bëri ay kon ma ñëwaat un peu ci li nga xam te ni mooy euh, tukki yére bi yére bi yére bi yére bi mhm. alors bala ma dugg ci tukki yére bi yére bi sànq solo woon lii ni ñëwaat solaat ni solaat lii création bi dafa rafet waaw baax na ñu delluwaat euh, nuyuwaat gars rek comme dem nañu publicité ba ñëwaat rek mhm. euh, di santaat yàlla bu baax a baax bi ñamaatee temps toogaan nii nekkaat deuxième partie bi macha allah waaw boo gisee nag ñu changé yére. Uh-huh. comme maanaam tey ci aar yi comme aar la ñuy yëngu. waaw ah, day création yu bees yoo xamante ni dañ koy def saa su nekk. ñu bëgg di ko wane ñi nga xamante ni ñoo ñu tax a fii pour ñu mën a xam la mooy tukki yére. Uh-huh. parce que boo xoolee tey tissu wax wi uh-huh. ñu boole kook lee bi nga xam dafa oyof. neex si tàngaay. kon moo tax ñu solaat ko. Mhm. ñëwaat toogaat fii rek. Mhm. comme di wane tukki yére bi. Mhm. ba yi ngeen di gis nii yëpp ci tamit euh, mun naa ni si création lay bokk rek. ñoo xam ne mun nañu ne. du ñu euh, tissu tubaab rek la ñuy utiliser. mun nañu utiliser tissu yoo xam ne. tissu africain bi la. rafet na dëgër na te ku nekk mun nga ci créer loo xamante ni. dina dina neex a xool ci bët quoi. waaw moo tax ñu solaat lii nii. toogaat tey pour gars yi rek. alors man li ma neex ci yére bi nga sol nii même bu du tàngoor sax yére bi mën nga ko sol ci seddaay. Mhm. parce que li tax mën nga ko sol seddaay en même temps nga sol ko nii nga sol benn genre semis ci biir teg ci teg ci lii dafay rafet. day rafet day rafet. parce nga boole euh, maanaam ku xam xel dafay dem tubaab yi. Mhm. boo jëlee semis teg ko ci teg ñun li mooy suñu culture muy muy bu dafay am beneen aar. waaw mooy aar bi rek comme li nga wax noonu rek. Mhm. Euh, aar moom chaque jour del créer. loo xam ne day bees tàq si nit lii dafa nekk loo xam ne comme genre gramme bu la. Mhm. nga def ko benn genre demi grand boobu bu ndaw boo xamante mhm. euh, day day rafet quoi. mun nga ko booleeg jean mun nga ko booleeg la neex. Mhm. comme chemise bi nga waxtaan mun nga ko sol ci biir. Mhm. comme loxo yi loolu yëpp ci yëpp dafa man ak yow foo xam ne dañ fa yemoon je pense que ni am na ñoo xam ne ñu ngi naan pourquoi pas animateur bi duñ ñaar duñ ñaar foofu noonu parce que loolu intéressé nañu bari bari mooy la ma bari na xam te ni tey euh, ñu ngi foofu ci diaspora bi plus particulièrement foofu ci Espagne fa nga ne fa nga nekk sax yow nga leen di jàppale ci wàllum kayit un peu mën nga ñu expliquer un peu ci wàllum association bi nga ciy liggéeyal ak naka nga def naka ngay def pour jàppale leen. waaw loolu dañ ciy sawar a tontu. Mm-hmm. comme tey par exemple lay nekk doomu Sénégal. Mm-hmm. génn fii dem bitim réew ci Espagne. Mm-hmm. nga nekk fa ak nasaraan yi tamit. Euh, nga am boo xamante ni. ci muy ci côté police muy ci côté avocat yi. muy ci côté bu ci yenn député yi sax ngay ànd ak ñoom. kon loolu sant yàlla la. Mm-hmm. kon nag euh, loolu. député Sénégal wala député. Espagne non Espagne. bu Espagne. député yi nga xam nañ nekk ci parlement bu Catalunya bi. et c'est pas donné à n'importe tamit. non non non parce que te it lu gën a garaaw maanaam mooy. Mm-hmm. xam nga duñ naan euh, nit ki mooy dem sàkku ji. waaw waaye moo tax ma ni sénégalais. Mm-hmm. dañoo am dañoo am fulla am hmm. fayda si suñu bopp. dégg naa dëgg. te képp ku am fulla fayda sa bopp rek yaakaar naa ni looy yootu hmm. di nga ko am. Hmm. te it borom daraje ñoom nañ lay yóotu pour sàkku laa xam. te xam naa ne man sama sama xamante ñoom ñoom ñoo ko ci man. ba may ànd ak ñoom. te ànd ak boobu may nekkul ci wàllu koom-koom nekkul ci dara. lu dul der bu ñuul kese la pour jàppale sama mborom yi nga xamante ni. Ah, amaana. mënuñu yegg si foofu te it mhm. bëgg nañ loo xamante ni. ñeneen mhm. jafe-jafe tuuti. Mhm. ñu mën ko ci lu mu a gaawee boo xam ni man daf ma xoon jaaxal naa ma benn université foofu ca Espagne boo xam ni da ngay def foofu dafa def ay cours ay cours. alors mën nga ñu wax un peu naka nga def ba intégré parce que jot naa ci yenn information ñu wax ne comme quoi ne sa jàng euh, français soriwul soriwul noonu. mais lan moo waral sa jàng français soriwul nga dem ba Espagne di nekk ci yenn indi yenn université yi xam te nii soit Espagne lañu espagnol lañu ñuy làkk soit ku jàngul yenn jàng yi mënoo mënoo fa nekk yow nga ñëw imposer di leen di leen am foo leen dugal di leen dugal dugal feneen loolu dafay xaw a jaaxal ñu baree bari. waaw mooy boo xoolee mooy sama biir wax rek. Ah. Euh, nit ki boo nekkee sénégalais. Ah. am fulla sa bopp. Ah. looy yóotu di ko am wala ñuy yóotuloo sàkk loo xam. dëgg la. Euh, sama jàng doon na sorowul déedéet moo ne sorowul musuma jàng. école musuma fa toog euh, ban école musuma fa toog madame musuma wax A. monsieur musuma wax B. maanaam kon loolu dina xaw a yéeme tuuti. Mm-hmm. dem intégré wu. Mm-hmm. jàng làkk bi te jàng mook ci ecole jàng moo ci école. mais mais mais ban ban fit nga am nga ne yow ba ne yow Akon Thiam d'ailleurs sax ku nekk Sénégal da mm-hmm. parce que en étant nga ne yow benn Sénégal nga rek wamul fit da nga ko parce que ku ñu xam-xam ne dañoo am fit. loolu moom fit suñu la fekk base. mais man man li ma mun comprendre muy naka nga def yow maanaam euh, mu rectifier un peu sama sama wax maanaam ne nga jàngoo jaaroo sax ci baam école. alors fit bi nga am. ba dem osé na yow da ngay dem si université pour pour pour joxe fa ay cours. Mhm. idée bi fan la jógee ak lan moo waral loolu. waa idée bi fan la jógee mooy gëm sa bopp rek comme li wax noonu. surtout surtout. Mhm. ba pare bëgg xam. Mhm. parce que boo gësoo rek xam. dëgg la te mën nga ñàkk jàng. waaye ci biir gëstu bi ngay def. di nekk ci red yi wala nga ubbi sa benn page Facebook wala affaire yooyu. di bind ñu lay bind ngay jaxase fii xamu. ba mën a bind tey. mun naa bind lu ma neex ci espagnol mun naa liir lu ma neex ci espagnol ba ci français sax. Uh-huh. mun naa ci liir mun naa ci làqati mi sama soxla. Uh-huh. te mosuma ko jàng. Uh-huh. kon loolu tawféex la. Uh, bëgg-bëgg la daal. waaw maanaam nit ki loo bëgg rek. da nga koy am. dëgg la donte amoo lépp sax di ñu ci am as tuut. parce que suñu borom moo ne sabab lu leen ba fekk si leen. kon ñun ay ndaw lañu. lépp lu ñu bëgg lu nekk rek ci suñu xel mu sell bi nga xamante ni. Mhm. doonagul lu lu nasax daal. Mhm. lépp loo ci bëgg dugg rek amaana. Mhm. dina ci dugg. kon li may wax foofu rek maanaam ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew. doon ay mag wala ay tuut tànk. nañu fexe intégré wu. parce que réew boo fa nekkee du kese na koom-koom bee moo la fa yóbbu. fexeel intégré wu. ba tey problème boo mën a am rek di nga xam ni fii laa jëm pour defi ko. fii laa dem pour saafara ko. sànq laaj nga ma ci biir question euh, cour mm-hmm. loolu maanaam ci parti bi nga xamante ni fa laa nekk ñu di wax CGT maanaam CGT maanaam genre syndicaliste la buy taxawu ñi nga xam ne ñoo jaaxle seen paramu liggéey ak ñi nga mm-hmm. xamante ni dañoo am jafe-jafe avocat mm-hmm. wala loo xamante ni gouvernement bi war na ko def ci yow te def ko ci yow maanaam ak ak yelleefu doomu aadama ñoom ñoo la koy protéger droit de l'homme mm, waaw droit de l'homme ñoom ñoo la koy protéger jox la ko ni mu waree te duñ ci laaj dara kon loolu tawféex la. Mhm. moo tax ma nag fexe ba dugg ci ñoom. Mhm. te d'ailleurs sax am na ci loo xamante ni buñ ci eggee nañ ci gën a leeral. Mhm. maanaam ci côté boobu ci fonction yoo xam ne war naa fa mën a nekk ak li muy proposé ak yooyu noonu. waaye loolu yegg seeguñ ci incha allahu rabbi dinañ ci yegg si léegi. acca ba tey mën nañ ci mën nañ ci mën nañ ci porte ñu fàttali leen yéen fi nga xam ne mooy Actubuzz TV bu leen fàtte abonné suñu page euh, YouTube bi di Actubuzz TV ngeen bës li nga xam mooy cloche de notification bi dina leen permettre lépp loo xam ne dafay suñu vidéo di ngeen ko am en temps en réel. Mm-hmm. ma des ko yow foofu moo xam euh, li nga xam te ni mooy euh, wàllu nasaraan si. yombul nga nekk benn sénégalais wala benn nit boo xam te ni sa jàng soli soli noonu wala boog du toggoo ci ban école nga dem ba intégré wu di liggéey ak ñoom mm. ba ñoom ñi ñoo nekk ci gouvernement bi di la di la di la soxla alors mun mun naa xam yan proposition la la li nga xam ne mooy ñi nekk ci gouvernement bi di la proposer pour liggéey ak yow waaw loolu dam ciy sawar a tontu. Mm-hmm. waaw balaa ñuy avancer tuuti rek mm-hmm. di ziar di ko ziar bu baax a baax sa xarit sa doomu ndey ami Sadio tamit mi ngi junior ah. ñoom ñëpp xam nga ah. Ah. maa surtout Mbaye Saliou waaw di ko ziar bu baax a baax di ziar nga xamante ni Mouhamed Mouhamed Coutir macha allah moom tamit macha allah Coutir di ko ziar bu baax a baax mm-hmm. waaw di ziar euh, Mame Saliou mm-hmm. waaw moom nga xamante ni Fall la tudd mais man Saliou laa koy woowee parce que bëgg Serigne Saliou moo tax ma koy woowee loolu waaw Serigne Fallou mm-hmm. moom Serigne Saliou bu nekk ci marché ñetti mbaar fii di ko ziar bu baax a baax waaw léegi loolu maanaam ñu duggaat ci foofu ci question bi tey par exemple mooy li ma wax rek boo demee ci réew da ngay intégré wu. dëgg la a xam na réew mi di doxee. Mhm. nga ànd ñoom doxee ci loolu. Mhm. tey nekk naa ni koo xamante ni nit kiy dox ci ñaari parti la ñaari côté la. Mhm. waaw di jox dox ci religion. di jox ci tamit ci wàllu politique. mais politique bi politique nekkul politique boo xam ne ngay politique maanaam pour ay campagne wala genre ak noonu. non non bi pour ci der bi ñuul la. parce que nit kii bu fekkente ne am nga foo toll te toll foofu rek. Mhm. jéemal gestu ginnaaw pour lonku xëccaale ko. dégg parce que ñoom bi ñuy sàkku sama xamel ci man. Mhm. ñoom dañ ma woo proposé ma. Mhm. ni ma lañ bëgg. ma politicien. ma waxee du ma politicien ma léegi nag parce que dañu gis ngay jàppale gars yu bari fii nii. di dox ma ne man jàppale ma kenn damay wane rek. waaw damay wane nga soxla avocat wala affaire man la demal ci diw wala nangam ak nangam affaire yooyu. ñu ne kon loolu la demee. baax na bëgg nañu liggéey ak yow. bu fekkee ci côté immigrante la. nañ xool ni ñu def pour jàppale leen affaire yi ma lim bu dee loolu moom. sawar naa ànd ak yéen. ñu commencé nag di ànd. ba tey jii nii parce que am na proposition yu bëri yoo xamante ni. buñ ci eggee rek euh, dinañ ci wax te buñ ci waxee dinañ ko wane ba ñëpp xam ni carrément ci li la ñuy dox incha allah. alors sénégalais wala sénégalaise bi toog foofu nga xam ni mooy ci euh, bitim réew Espagne bëgg kayit tax bëgg kayit yàgg na fa. Mm-hmm. wala euh, liggéey na ba am koom bi mu bëggoon. wala liggéey na ba am li mu bëgg pour investir ci réewam. te amul ay kayit. wala koo xam ni mi ngi daw di di di làqatoog yooyu amul ay kayit. fan la war a mën a jaar ba nga xam ne dina am kayit yu légal. waaw c'est que mooy li ma wax sànq dëkk boo ci duggee da ngay intégré mhm. boo intégré wu di nga xam sa droit. Mhm. di nga xam fu ngay jaar pour am kayit. mais bu fekkee ne yow bu fekkee yow da nga ñëw ci réew. Mhm. amoo kayit. waaw pour nga intégré est-ce que dina dina yomb. dina yomb parce que boo nee ci réew mi. na bërëb yoo xam ne nga dem nga. demande pour mhm. jàng. làkk bi maintenance ngay jàng tamit mun nga utaale liggéey ngay liggéey wala ngay jaay wala genre action bi noonu. Mhm. donte loo xamante ni lu ñuy terale tamit te mënoo toog sans te doo dund. lan moo tax nga baal ma lan moo tax nit ñi ne ba demee Europe taamoo kayit. Mhm. doo mën a loolu wax la rek parce que bëri na ñoo xam ne tey dem nañ Europe. di fi tabax ay kër yu taxaw. te amuñu kayit te ñu ngi liggéey. sans dépend ci ki la jël ki la jël mun na xam ne amoo kayit. mu dugale ci entreprise am ngay liggéey. Ah. wala yeneen genre yoo xamante ni lu ñuy wax ci ci ci. écran waaw waaye nag ña nga fa nekk ñi ngi liggéey ku bëgg a mm-hmm. liggéey boo demee ci bërëbu liggéeykaay yi. Mm-hmm. mu leen ni fii kat boo fa demee liggéey. Mm-hmm. nga jël loo xamante ni xam boo demee di ko mën a wane pour mën ci liggéey. tamit loolu day yenu maana daal. mais bu fekkee dañ ne noo ko fa amul kenn mënoo fa liggéey kon. mun naa ne bu fekkente ne quatre-vingt-dix la. kon du ñu 90 pour cent boobu ngeen jégal ma. Mhm. kon du ñu liggéey. dëgg waaye tey bari na ñoo xam ne ñu ngi ñëw liggéey foofu te amuñu kayit amuñu dara maanaam daal comme li nga wax sànq. Mhm. loi Espagne dafa ne. Mhm. boo nee cëpp ci réew mi. di nga toog 3 ans yoo xamante ni da am preuve. maanaam maanaam boo ñëwee da am adresse. waaw fi nga dëkk maanaam fi nga dëkk yow waaw ñu ne yow fi nga dëkk. am nga adresse. jour bi nga am adresse. waaw fa la preuve di tàmbalee. waaw ñu koy wax empadronamiento. waaw bu dee ba mat ñett at. si ngay ut contrat un an boo amee contrat un an. nga wut sa casier judiciaire. contrat mooy fi ngay liggéeyee. waaw contra mooy contrat bu mënta doon. contrat na doon contrat maçon mën na doon contrat togg mën na doon contrat menuisier ak con na nekk contrat boo xam ne rek la nga boole ko sa certificat. casier boo xam ne fi nga koy liggéeyee Sénégal jëlee Sénégal ñu traduire ko en espagnol. Mhm. ak yeneen preuve yoo xamante ne la koy laaj. Mhm. nga boole ko ak yooyu ak empadronnement bi nga dem. Mhm. demander. donc xaar yàlla. am na ñoo xam ne lépp day légal des fois ñu rejeté leen. Mhm. am ñoo xam ne dañuy manqué des fois ñu am chance ñu jàll. Mhm. des fois nga ci réseaux sociaux bi naan Espagne day may kayit day maye kayit. Mhm. parce que tamit nit ki booy wax da nga wax loo xamante ni. bis boo demee ba toogaan ñu la yaa waxoon li nga ne maa ko wax. dégg naa dëgg. te it di jàppale gars yi ci li nga xamante mooy information yi am ci biir réseaux sociaux yeeg yooyu. kenn ku nekk fa nga dëkk. am na sécurité sociale. am am na police nationale. lépp loo bëgg ci wàllu këyit lu nekk. demal ba foofu noonu nga laajte. lii laa soxla ñu jox la papier ne li nga soxla lii ak lii ak lii moo koy moo koy saafara. yow mi nga xam ni yaa ngi yaa ngi Espagne nekk fa yàgg fa lool macha allah euh, tey bu fekkoon benn benn nit dafa toog ci ci bi di la di la déglu xamul na kay def pour jaar foofu soit amul këyit wala soit bëgg na am këyit. Hmm. xamul naka la kay def est ce que bu ñëw ci yow di ko dimbale ba mu am këyit. waaw dañ ko dimbali dañ yoon yi. Hmm. nañ ko wan yoon ne ko fii ak fii ngay jaar. Mhm. ban preuve nga am ak fan nga toll. Mhm. ñu wan ko fu muy jaar. Mhm. bu fekkee dafa manqué la ñu ne ko il faut nga xaar nangam. parce que d'ailleurs sax euh, jamono yi ñu weesu nii ci ginnaaw. am na campagne doon def pour gars yi maye kayit. waaw mais ba léegi loolu sotteegul mais modifié waat nañu. loi Espagne pour ñi nga xam ne ñoo am deux ans. preuve deux ans. dañuy def euh, formation pour trois mois bu ñu paree. Uh-huh. am na yoo xam ne lañ ci teg. Uh-huh. ba ni ñuy jotee seen kayit. Uh-huh. mais nekk lu yomb. parce que boo xoolee jamono si ginnaaw amoon na rumeur ñëpp naan Espagne day maye kayit waaye boo xoolee loolu sax. moo gën a difficile preuve trois ans. parce que dañ nekk ku am preuve deux ans nga ñëw. di nga def formation. arégo maanaam ci wàllu li ngay liggéey. bu fekkee ne loolu weesu na ñu jox la benn. Euh, benn papier boo xamante ne wane ni. Mhm. yow def nga formation trois mois. Mhm. day durer un an. Mhm. bu un an yooyu jàlle nga yokkaat ko amaat un an. bu un an yooyu jàlle nga soog a demander sa résidence. kon donc preuve trois ans yi. moo gën a gaaw. parce que boo xoolee yooyu yëpp dañuy dañuy xool ni ñu defee pour ëlëmal gars yi rek. nekk loo xamante ni. lu tegu la moo tax li may wax chaque jour rek fi may daanale ci question boobu. képp ku bëgg information bu leer. fi nga dëkk am na sécurité sociale. Mm-hmm. estrangeria mm-hmm. police nationale demal ba foofu. nga mm-hmm. ne problème bii laa am ñu bind la si fooy bu ñu la ko joxee. nga ut avocat bu baax. avocat bu ne la ah fan nga toll lii ak lii su boobaa bu la waxee li nga xamante ni. moom nga soxla. Mhm. di nga ci am prévu leer naññ. Mhm. te doo am benn problème. Mhm. alors bu fekkee sama sama temps léegi mu jeex mais ngeen ma benn cinq minutes loo xam te ni moom daf ci yëf ci yëngu. ci yooyu loolu tamit euh, lu am solo la. parce que moom jóge na fii dem beneen réew waaye fàttewul diineem waaye tamit mi ngi fexe ba ñi nga xam ne ñoo nekk foofu tamit mi ngi leen impliqué aussi li nga xam ne mooy diine gi pour ñu bañ ko di fàtte et c' est important wala ma duggoo foofu ci wàllum diine gi un peu dama bëgg nga joxe seen di naan ko mu joxe numéro parce que li tax ma bëgg nga joxe sa numéro sa numéro li ngay wax dafa am koo xam ni peut-être mu ngi toog bëgg na gën a comprendre bëgg na gën a xam ñu lu ñuy wax lan la naam temps bi mathématique wu ko na boo joxee sa numéro peut-être dina dina dina dina la woo nga jàppale ko ci loolu kon ñu ngi sàkk nga joxe sa sa numéro. waaw ba na numéro bi 0034 la. waaw 642. waaw 13. waaw 65 64. bamtuwaat ko. 0034. waaw. 642. 13 65. Euh, waaw 65 64. ok je pense que loolu mooy numéro bi nga xam ne mooy numéro Espagne parce que moom li muy nekk Sénégal fii euh, bariwul moo tax mu joxe numéro bi nga xam ne mooy numéro Espagne mhm. ku ci woote rek incha rab rabbi dina la gën a expliquer gën a comprendre fi ma jeexale yow dañu amee benn benn minutes rek ma dugg fa wàllum xasaayid yi. Mhm. naka nga def ba li nga xam te nii mooy ñi nekk foofu ci Espagne nga impliqué leen ba ñuy dund wàllum xasaayid yi di ko durus. waaw loolu tawféex la parce que it euh, nee nañ kenn ku nekk euh, sa diine waroo ko bàyyi ginnaaw. dëgg la rawatina nga doon taalibe. Mhm. kon fépp foo nekk fu nekk rek war nga doxalin doxalin boo xamante ni képp ku la gis ku nekk rek xam ni kii ab taalibe la. allah parce que dañ nekk ay ndaw. Mhm. waaw juddoo ci yoonu murit. Mhm. màgg ci yoonu murit. ñu nekkoon jamono tout tànk euh, Hizbut Tarqiyyah jóge fa kon bi ñu demee Espagne war ñu fàtte loolu. waaw donte bi ñu demee sax am na ci yenn ñu nekkoon mais bi ci biir nag. ba daayira commencé taxaw ñu taxaw. ak jëmm joo xam ne mi ngi tudd Seydina Alioune mm-hmm. jàpp ci liggéey bi ñun ñoo fa nekkoon ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci woon tamit ñu nekk ak ñoom ba fexee ba formé ba fa kuréel mm-hmm. kuréel boobu tey mm-hmm. maanaam ñu koy dégg fu nekk ci Catalunya bi waaw ñu ngi jàng fépp fu nekk bi rek loolu ñu a ngi koy def yooyu tamit euh, ba léegi ñu ngi koy ñu waaye nag nañu xam ne Europe dene ku bëgg a jub di nga jub ku bëgg a dëng di nga dëng dëgg la waaye nag jub rek am solo te it fu waaye dem fu nekk bul fàtte sa diine mm-hmm. bul fàtte sa diine ak tarix boo mënti doon boo ne cëpp ci dëkk julit mm-hmm. da war a laajte fu jumaa ja nekk wala fu mm-hmm. jàkka ja nekk euh, bu fekkee tarixi tijaan la wala muri wala laayeen nga laajte daayira ba fa la nekk nga say dem di saafonte ak ñoom di bokk ak ñoom jotaay kon loolu tamit day day day tax doo fàtte sa diine ak fan nga jóge quoi mhm. waaw alors euh, bëggoon naa loolu ñu gën a yaatalu ci lu bëree bari mais temps bi du ko mate lan mooy kàddu gu mujj gi waaw kàddu gu mujj gi mhm. mun naa doon kàddu gu mujj sax parce que dinañ dañeen dinañ dajewaat ci yeneen jamono incha allah waaw di santaat yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. yéen di leen sant. yow fay ak sa caméraman bu xaar bi nga xam ne Babacar. <laughs> xarañ sama sëriñ la sëñ Babacar. sëñ Babacar si moom moo toll ci ginnaaw di leeral lumière yi. kon kenn du moom. waaw di ko sant bu baax a baax di la jaajëfal. Mm-hmm. di jaajëfal tamit ñi nga xamante ni jël seen jël leen seen temps dañu seetaan. ci ñun ñu ñàkk solo ñi nga xamante ni waxuñu fi dara. c'est important waaye dañuy jéem rek. Mm-hmm. waaye lépp lu fi defaru rek. ngeen xam ni. di suñu xarim ci suñu borom la. waaye lépp lu fi yàq lu nekk rek ngeen xam ni. suñu matadi la quoi. Mmh. matuñu parce que doomu aadama matul. Mmh. kon nag bi euh, sant ñëpp rek. Mmh. di ziar ñëpp. di ñaanal suñu borom. di ñaan suñu borom nag mu defal ñu jàmm defal ñu tawféex. doole biir ak biti zaarin wa baatinan. di waxaat euh, jërëjëf Serigne Saliou. jërëjëf Serigne Saliou. jërëjëf Serigne Saliou. yàlla na jàmm yàgg ci àdduna. bu jàmm yàggee rek. yaakaar naa ni lépp lu ñu sàkk rek suñu borom rek dina yomb. alors mbokk yi ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous j'espère aussi lu ñuy loon tey neex la neex na saa su nekk nag Pape Faye Prési lay doon ci lépp loo xam te ni dafay wàllum culture ak lépp loo xam ne dafay làmboo loo xam ni yéen askan bi ba ngeen ñu indi leen ko rek dañu ko indil ba tax na moo taxoon ah, moom suñu frère Aykon Thiam taalibe Serigne Serigne Salo bi nekk benn jeune boo xam te ni mu ngi bay waaram je pense que ni bu jeunes yu bëree bëree bëree bëri def defoon bu ñamoon lu lu mel ni moom lu muy def wala lu xaw méngoog rek je pense que li nga xam ne mooy semence bi dina dina jeex fii Sénégal ndax euh, nit koo xam ni nekk foofu ca ci sa Espagne su ko neexoon nekk ci ci lépp ci naka su dul noonu waaye lépp lu mu def rek da ci day day xam fii fi mu jógee muy Sénégal donc di ko remercier bu baax a baax ci disponibilité bi ñu may tey ba ñu toog partager ak moom j'espère que aussi tamit li ñu leen waxtaan li ñu waxtaan ma ak moom j'espère que euh, leer na waaye di remercier bu baax a baax sama jigéen sama xarit kooku mooy Oumou Waly ah Oumou Kassé borom Mauritanie ah di ko ñaanal jàmm moom Oumou Waly di sàkku ci moom mu di ko ñaanal lu baree baree bari ndax moom yàlla vraiment nag moom moo tax ma xam ki nga xam ne mooy Akon Akon Thiam bëri na gis yu bëree bëri yoo xam ne dama koy def ak ay artistes moom Oumou Oumou Waly donc moom mooy kale émission